boolee nga yor juróomi kër boole nga yor juróomi kër juróomi kër yoo xam ne benn bu ci nekk un lay jar kër yooyu nga yor kër gu ci nekk yaa ngi fa denc soxna yaa ngi fa denc lu mat juróomi soxna yoo xam ne ñoo gën a nooy pëddum nen mais yow boo ñaanul jàmm looy ñaan mais ñoom seen jàmm ñun du sun jàmm li ñu bëgg mooy seen oto yooyu ñu yor ak seen kër yooyu ñu yor ci alalu Sénégal lañ ko jëlee ñi ngeeki kër ñi ngee ki oto kër yu jar ay milliards lépp alalu ndaw ñi la moo tax ndaw ñi mënuñoo am dara seen ndaw ñi li ñu war a am grand électeur yooyu di wax naan dëkk bi bu xale yi génn ñoo ko yor bu ngeen génnu ti dee rek ndax xiif dina leen rey wala ñu not leen ba ngeen faatu li gën nag mooy booy faatu nga faatu ci dëgg du dëgg ñoom jàmm lañ mën a ñaan parce que ku yor juróomi kër yu jar milliards yor fi ko oto yu gaare yor jongoma yu nooy ba mel ni pëddum nen loolu bu jàmm amut noo koy noosee nooy bànneexoo di nga ñaan jàmm waaye gone yi dañoo néew ci jàmm lekkuñu naanuñu noo ngi jël seen ressource naturelle di yóbbu ñoo ngi leen di rey kenn du def audit 14 mort am na boobu ba léegi kenn mësul taxaw ne mi ngi def enquête loolu pour lan. Euh, euh, non déggoo li ma la wax man Mbàkke laa dëkk man sama oto bob, wëli man ñaari wëlis laa yor damaa yor sama wëlis soo xam ne mbassin laay def. bu ñu autorisé mbasin bu baax laay def def sama caaya def samay marocain bu ñu autorisé wul ma def sama tëré def samay bëkkana day xëcc sama fulaar damaa ñëw dañoo décentralisé Ousmane Sonko dafa woote yàlla ma yàlla musal ci woote bii Ousmane Sonko di woote ma koy tardé te nekk te jàmm wala ma nekk Sénégal même bu ma tukkee dinaa dagg bee ñëw man Touba laa jógee ñëw pour taxaw lii mu woote parce que xam naa ne euh, woote la boo xam ne njëriñam taxut parce que koo xam ne jàng na li mu war a jàng xam li war a xam tey na fa ñu ko loolu ñàkk lépp. am ay doom yu am vingt ans ñu génn ñu leen di fontoo naan leen seen baay dafa violé ci ay kàcc ay tappale loolu ñun xeexaluñu Ousmane Sonko ñun suñu bopp la ñuy xeexal bu ñu fàtte nag gatsa gatsa gi woote tamit dañuy ñëw fii doxal gatsa gatsa gi ba pare waat sitting ban fa woote ñu def ko. Serigne Assane Mbacké ah, ginnaaw ah, ko jàppe woon maanaam information bi ñu am ci moom fi ne nii moom damaa gëm ne euh, ku nekk Pastef di jàppale Ousmane Sonko te jàppuñu la yow yaa war a seetaat sa bopp lu tax jàppuñu la mais jàpp nañ diw ndax daa ànd ak Ousmane Sonko loolu moom euh, du du du événement quoi sëñ Assane Mbacké man maam maa moom ñoo jiitlante ak président Ousmane Sonko deful dara président Ousmane Sonko la top ñu sànni ko bomb la mu seen mu taxaw ñu fekk ko fa benn pick bu jógee Dakar jàpp ko. boobu ba léegi nag dañ koo tere woote tere ko bépp àq bépp yelleef mais loolu taxut ñu dellu ginnaaw ñun danoo faatu ba pare lépp lu sëñ Assane Mbacke wax wax naa ko lépp lu mu def def naa ko incha allahu rabbi ci loolu lañ ne Macky Sall moom soxna Bator astaghfirullah soxna Bator na arrêté lii muy def te xam ne ñun du ñu dellu ginnaaw ci lii ñu nekk parce que damaa dégg benn xale keroog mu ne lekkuma naanu ma dee rek moo tege ku lekku naanu dee topp ci li nga li la war a def comme dee la nag nañu dee ci dignité dee ci dëgg tew dee ci woote bu Ousmane Sonko bi xam ne sunu njariñ la lii lii ñu nekk. Euh, euh, waa xam nga loolu euh, man damay yaakaar ne xaj buy màtte du baw xaj buy màtte olof Njaay na xaj buy màtte du baw Ousmane Sonko moom yàlla xam na ne Macky Sall bu ko séenee ci télé day wëlbati ko wane ginnaaw wala mu jël dara taf ko ci kanam gi koo xam ne nag. sa baay ñemewu ko nga wëlba di ko di ko tooñ ñàkk jom la barke Seexul Xadim Ousmane Sonko bu faatoo ban suul ko ba mu doonum niiw mu nekk ci bàmmeelam Pape Malick Ndour ñimee ta jege lu ñimee ta laal lu jege Ousmane Sonko waxuma laa muy dund usmaan Sonko wax wax dara yomb na ci moom waaye jëf koo jafe keroog Kër Massar ba ñuy ñëw ñoom def nañ point de presse ne fu patriote fekk fu patriote yi ñëw dinañ fa ñëw dal ci seen kaw France daal di xëddeem mitinu mbàkk bi am na ñu génnoon di calli calli ma ne leen ku fa jaar daañu toj sa kër toj sa booba di may wax ak yow nit jaaru fa Ousmane Sonko moom toog ci télé yi yi wër la ngay wax yomb na songu ma dëkku mbër yomb na waaye songu koo jafe ñu ngi leen di xaar. d'après yoo xam ne xam nga mbër yi ak nervi moom ba Macky Sall commencé nekk dictature dictature ba léegi mbër yaa ngi koy topp nervi yaa ngi koy topp du dëgg. te it li ñu bëgg Ousmane Sonko fu mu bëgg a dem mi ngi fay dem lu mu bëgg wax mi ngi koy wax Ousmane Sonko soxlawut mbër soxlawut armée soxlawul dara xam nga lu mu soxla population bi population moo moom réew moo souverain mooy joxem réew te maanaam kaaraangeeg li mu wax rek man yàlla la laa dénk sama bopp ak askanu Sénégal te it ku ne xam na ne biñ bëggee jàpp Khalifa Sall jàpp nañ ko rendi ko cow di jib ñu jàpp Karim Wade rendi ko coow di jib waaye bam mu daasee paaka bi jub Ousmane Sonko ba léegi dara mënta xew léegi mu mat juróom-ñaari at te ba àddunay tukki Ousmane Sonko ci kaso ba Macky Sall ci biti palé ba. projet ah, bu mujj bi gis nañ ñu toj weeru Ousmane Sonko yobbu ko ah, le 16 yeen ñi nga xam ne patriote ah, ban ngeen ci am. xam nga ci côté bi sax ay bien ci biir réew mi tay li Ousmane Sonko di wote population ko ji dafa doon lo xamne message fort la. ndax dañu xamné yi nga xam dañu am seen ay bien parce que étranger yi ñoo ñoo ñu de ci dëkk bi kon dëkk bi am seen intérêt la parce que ñun ñi dëkk réew mi amun fi dara Nous suñu kër yi ñu ak suñu jabar yi lan fi am ak doom comme mi nekk ci dëkk bi étranger ko yor te étranger yooyu dëkk bi nekk ci arrangé leen moo bu Ousmane Sonko wootee day leen dégg li muy wax mbooloo day wax politicien lim a bëgg la gën ragal mbooloo day wax dina tax étranger yi nga ñooy ñooy ñooy ñooy lépp soxna ku moo yilif soxna Bator lu mu ko wax lay def lu mu ko tere lay bàyyi ñun niñ gëmee Serigne Touba ne ko jox nañ la suñu bopp àdduna ak alaxira soxna Bator noonu la joxe boppam Macron àdduna ak alaxira bu ko Macron digalee mu def bu ko Macron teree mu bàyyi te Macron moo moom réew mi ndax lii nekk ci réew mi di njariñ France la jëm kon bu ñu génnee nañu war a génne en masse fi ñu bëgg a egg ak tappale yi ñu bëgg a def Ousmane Sonko soxna euh, euh, Macron dina ne soxna Bator génnal ci lii parce que lii boo ko defee suñu alal dina ci ko defee dinañ rikkili ne mu gën a Fall moom mi nga xam ah, koo daan ah, man kooku jàppewuma ko nit kooku moom marionnette la boo xam ne man kooku xawma lan la jàppewuma ko sax nit xaj sax am na njariñ parce que xaj lu am ngor la ku ne xam na ne bu nekkee ci wetu borom booy dee mu dee booy dund mu dee dund te boo dee bàyyi ko fa mu tëdd ci sa bàmmel waaye ku nga xam ne da nga ne da ngay jàngale droit vraiment kii ñam jàngaloon droit sax war nañoo am gàcce man de bu ma amoon sama doom muy def droit Gàmbi laa koy yóbbu mu def ko fa ku toll ni Ismaïla Madior Fall ak jàngale droit ak lim ci def dem ba taxaw ñëpp di ko dégg mu ne mak Sall amul droit def troisième mandat yëf yi ñu fal ko yëf yi neex mu gundaandaat mu génnaat ne politicien lépp lu waxoon mën na cee génn ñoom buñ buñ ñàppee ngor du ñuy gor. buñ nampee ngor du ñuy gor am na loo xam ne dara àdduna jëralu ko. ma ngay wax yeneen opposant yi nga xam euh, booloo waaw mbooloo mooy doole waaye tamit dinaa wax yeneen opposition yi tamit ne leen gaa yi fi nekk depuis Senghor depuis Senghor ba tey jii may wax ak yow gis nañ leen. waye nak beut biñ leen beut biñ doon xolé Senghor ba fi lañ leen di xolé Ousmane Sonko mi indi lu bees daal la ñuy ndax ma ngi gis ñu naan euh, euh, plan A ak plan B ñun amuñu plan A amuñu plan B Ousmane Sonko bu ngeen waxe ba Macky ki soxna Bator rend ko procès bi yakuna parce que man nga am fit do am xam-xam man nga am xam-xam do am fit waye nak Ousmane Sonko liñ naan yu bajilu kulli kulakal yawma maqdin wa insha rabbi la ura dahra sawani perfection moy Ousmane Sonko buñ la ko pikiré di nga mandi di nga reg parce que euh, bukki bi mu yootee ab xaal xaal bii ñuy lekk bukki da koo yoot ba teg ko loxo daal di reetaan ñu ne ko lu tax nga reetaan mu ne waxuma la neex a yoot waxuma la neex a yoot gi waaye da ngay regg mandi Ousmane Sonko mooy regg mandi ñun amuñu plan A amuñu plan B barke Seexul Xaddim bu Ousmane Sonko nax saaya procès bi nax saay amul keneen ko attan procès bi kenn ku ko attan amut man de wallaahi wa rabbul kaaba bu ñu éliminé Ousmane Sonko ma bàyyi luy politique ak di ko wax waaw mooy plan Z Massar da ngeen woote woon gerte gerte tey fii ci ACAPES ngeen woote Giga meeting ban message bi ngeen bëgg a jox à l'endroit maanaam ki nga xam ne mooy le président de la république mais kilifa diine yi ne man affaire kilifa diine man bu ma sañoon dooma ci laaj parce que xam ne def ñu def du man loolu laa gëm quoi ñoom li leen war ñu ngi parce que kilifa pour man du àtte xeex te Macky Sall xam nañ ne ku ñuy xeexal la sëñ Mountakha ñaan na Ousmane Sonko ay yoon yoon ci mbirum Mbaye Touré mu lànk ba sëñ mun Mountakha jógee Touba dem seeti ko ca kaso ba ab taalibeem la woon sëñ sëñ Sidi Makhtar nee na ko bàyyil Karim Wade mu lànk ah, sëñ Abdou Assis Signor taxaw ne fii ne Macky Sall dëgg dëgg dëgg ku dëgër bopp la mais kooku jërta naan parce que tegul kilifa diine fenn Macky Sall kenn rek la teg fenn muy senes bu xam gatsa gatsa senes sub usmaan Sonko boo xam ne namputal ko ci gatsa gatsa rek la xam parce que xam na ne cër Macky Sall bis bi mu njëkkee jàkkaarloog senes bi ne leen déglu naa leen dégg na leen wax waxu yar yor bëri ci suuf mooy événement marché ya ban ñamanteek moom lu set wecc ca la nu joxe cër ba jamono ji i Sall même ñu koy jàppale di ko wax aw yiw di ko raay du leen fal ñu koy saaga ak di ak ñoom ak ko teg lu metti lay lay fal Macky Sall du ku nuy waxtaanal Macky Sall ku nuy xeexal la te Ousmane Sonko xam na loolu ñun ñu ànd ak Ousmane Sonko it xam nañ loolu patriote yi tamit aussi li ma leen di nañu bàyyi ndigal la ñuy déglu sa géttu nag boo koy rey di ko sàmm soo taxawee di leen déglu dañuy ruur tooli jàmbur wala bukki jël ko Ousmane Sonko bàyyi leen moom lañuy déglu dañoo war a xam dañoo war di ko détecté xam li mu bëgg ñu dox ca te xam ne li mu bëgg sunu njariñ la Ousmane Sonko lii mu nekkee coono bii mu nekkee capacité am ak xam-xamam may na ko mu dund li mu bëgg a dund kilo ceeb bu doon jar cent mil francs mën na koo jënd man mii ci loo boobu laa bokk te damaa bàyyi sama lépp ñëw di xeexal jeunesse bi ak di xeexal suñu suñu suñu suñu askan ñii fi nekk képp ko ànd ak Macky Sall li ma waxoon ci début bi rek sa intérêt kese kese ngay défendre mais li gën a ñaaw nag mooy lekk sa alal lekk sa alalu doom lekk say sët te ñii ku nga xam ne yor nga lépp looy noose rek xamal ne yaa ngi lekk wërsëgu jàmbur gars yi seen village yu mag yi ñu yor mbuur yor ko sali yor ko Dakar gi juróomi kër di xàll xàlli wat naa ko ci Serigne Touba Mbacké wërsëgu ndaw ñi juddoo gud la ñooñ Macky Sall la baax Macky Sall la ñu jig ñoom Youssou Ndour ak ñoom euh, gars yi loolu rek lañ mën a wax Macky Sall la jub juróomi kër Mercedes bu génnee C la nga jënd benn bu génnee x nga jënd Range bu génnee Velar nga jënd yor juróomi kër yoo xam ne benn bu ca milliard lay jar yor sa jong mayu nooy ba mel ni pëddum nen jàmm ngay naan pour mën a serloo loolu mais ñun lii lañ xam ne ci naaj wi parce que lekkuñu naanuñu na buur masal nu boole ci aar nu te gaaw teggil nu makki euh, makki ci réew mi wasalaamaaleykum wa rahmatullah